Adama Fall man maa la wax lii Adama man maa la wax lii advienne que pourra jarul ay xam nga ma xaw ma la fenn Seydina Mouhamed laa la wax xam nga Fatick dafay woo dara lu dul fenn ñeme def dara ñeme woo fi def dara Adama Fall Adama Fall defoo fa eh, defoo Fatick dara fenkat nga Medina boobu maa la a toj man boy de la foos laa fa laa jàngee doomu Fatick Adama yow xolal tàppet nga Adama xolal man du ma Fatoumata Fouta Tampi Adama dama la bëgg nga wax loolu man du doomu ragal bang may woo di may saagante naan da ngay ñëw Fatick ñëwal je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends je t'attends man je t'attends de je t'attends de pied ferme te li ma lay wax ni maa koy enregistré soo paree nga gis ko si Facebook bi Adama fenkat nga jaru nga may woo di may baab dama bëgg nga taal sa oto nga ñëw Fatick da ngay baab da ngay fen Adama Fall amul prepare man je suis man je suis déjà prêt man je suis déjà prêt man dama pare man dama pare ñëwal xanaa da teg dara sama loxo non xanaa da teg dara sama loxo man man fenkat na ma dóor da fen dangay fen dangay fen da ngay fen da ngay fen da ngay fen da ngay fen tu dangay fen tu mens tu es un tu yow enregistré da ngay fen yow te du yaa da fen te da ngay fen fen dangay fen dangay ngay fen lii ay menace de mooru tapet yi yow fenkat nga man góor jigéen dama menacé man yow dama nga sawi laa la wax nga bàyyi fen yi nga dem nga sawi nga tëri dangay ngay fen da fen yow tu es un menteur Adama da ngay fen da ngay fen da munoo ko da ngay fen da ngay fen da ngay fen da ngay fen barki alxuraanu karim yàllaay raye da ngay fen yow ah. da ngay fen yow yoo bu la tagee sax doo ko rey da ngay fen